y a un conseiller municipal à la commune de Pékin Nord Demba ñu le maire Amadou Diarra dafa def sortie dans sa commune mu cité la nommément qui réhabilitation théâtre de verdure bi ndax mën nga ci ñëwaat. Euh, merci Pékin Info qui est vraiment li ngeen ñëw je pense que je ngi vous def direct tout de suite ak yeneen organe et ça démontre que euh, commune Pékin Nord ñi fi nekk ñor en tant que personnalité politique di euh, l'espoir de la banlieue de passage alors comme niñ ko soxna May ko sama journaliste yi ma waxal théâtre de verdure de verdure le maire Amadou dit bu divertir li def ni dafa jouer jeu ak démb bi mu waxee bu tudd sama tour ci vidéo bi mu doon def à la mairie bi ma ko seetaanee dama reetaan parce que su fekkee dañ la dénk loo xamante ni askan bi yëpp ñoo ko moom biñ koy dénk dafa am benn espoir bi nit ñi amoon dénk ko élection ñëw xëccoo am mu gañe ñu nangul ko ko yàlla dogal ñun ñu nekk bésu ñaag bokk ci conseil municipal bi biñ demee bay def commission yi. suñu borom dogal ñu nommé ma président commission culture et loisirs au niveau de la commune de Pikine Nord li ma jëk def en tant que président commission moy organiser benn forum culturel dajale acteur culturel yépp ñu waxtaane nan lañuy fexé ba la culture ñu suqali ko doxal ko yalla dimbali ñu ñu dajal tous les acteurs culturels mu am succès bu éclatante at nous ci topp la première édition des journées culturelles de Pikine Nord avons nekkat un succès de succès. dama ko ak conseil avec des personnes de ressources comme Bernard Ousmane Ndiaye et tant d'autres Nous avons liggéey ci liggéey bu am solo organiser la première édition des journées culturelles je reviens un peu par rapport ak photo yimi woné birom ak projection yimi def malheureusement pour lui pour divertir la population et leur dire que né Alisson Ndiaye m'a réceptionné les travaux oui c'est vrai il a raison man ma réceptionné les travaux yi nga xamante ni nawle meeram Momar Fall moko ko ba mu jag mu fi Momar Danou mom mu ñëw inauguré man ñu nommé ma président commission culture et loisirs cérémonie de réception c'est normal parce que jour n'est pas fi maire entrepreneur bi def œuvre bi jour ne noonu pas ba Je ne fa pas le et on regrette rien parce que on a un mandat si on a une confiance pour que nous pour que mu signer protocole bobu nga xamni mo moo lekkale commune Pikine Nord ak ak société bi nga xamante ñoy liguey terre de verdure bi conseil dañu amone yàqin am ci mom confiance japp ne buñ ko joxé carton blanche dina defal askanam lo xamni bu ëllëgee askan bi un dina ci gis sen bop deuxièmement œuvre bi dina nek ben œuvre bu gigantesque bo xamante bu ëllëgee acteur culturel yëpp yëpp dinañ ci gis sen bop buñu démé tay ba fin de mandat ñu signé won 2015 comme nous avons koy la cérémonie de réception am ci œuvre boo xam ne Momar signé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 monsieur le maire du Doga, a fait un mur pour commencer les travaux mais population bi ñoo yey conseil mais on a une part de responsabilité extraordinaire ci parce que waruñu que rek gëmm jox ko confiance ni ko doxalal mais nak bo nek ak say nawle am liguey buñ la denk c'est normal que ñu jox la les moyens qu'il faut pour que nga mën liguey liñ la jox. monsieur le maire limi wax document yimi projeté nit ñi waxu ñu lolu fukki at ak jurum yima engagé commune bi ñu nek fukki at ak jurum yo xamanteni tay man mi di wax ak yéen soo moytuwul bu may retraité le contrat boobu di jeex digganteem ak société boobu noonu Pour demee ba koy signé est-ce que ngorom waru ko woon mayaat mu dellusiwaat dans le même conseil municipal pour leur dire que man kat ba ngeen ma mandat ma négocier négocier naa mais nag ka ma négocier nee na ci fukki at ak juróom la ñuy tënkaat mbir mi ca nangam lay jar monsieur le maire waxu ko il ne l'a pas dit c'est dommage. am na luy ñuul ci soow mi lu mu lii ñëw ci sol mi nag moom bugg ko seppi da ko cee bàyyi te ni kenn du ko wax mais kii aj ki teen rek lay bañ population bi dañoo teen pour xool li mu aj lan la c'est normal fii ku fi falu askan bi ñoo la fal am nañ droit bu ñu demee ba gis loo nga xamante ni lënt na seen xel ñu laaj ko maa ngi gis muy xas ay mouvement associatif yu ñëwoon biroom man mi sax dem na ba may cité tous les jours mi may cité ci ay Aliou Sow Ndiaye nangam Aliou Sow Ndiaye c'est clair Vous mu divertir nit ñi nit ñi c'est clair li c'est flou les soi-disant documents là bi terre de verdure techniquement am na loo publier non quand même il faut arrêter monsieur le maire il faut arrêter de divertir cette population là la population nord pikinoise dañu mag. xam nañu liñ leen baaxul xam nañ ni contrat yi see ci seen ndodd mënuñu ko dàkkoorati parce que ki lay noot su sa digg ginnaaw neexee ci ki lay noot soo fudduwul taxaw lu la dal sa bopp la population bi ñoo fudd parce que nooteel bi dafa métti parce que liñ leen bëgg def ci fukki at ak juróom engagé ko au dos de cette population avec l'argent du contribuable moo tax ñu ne ko arrête par force day leer motax sank slogan par force dama dem protéger ko BSDA mais mën abal c'est mon mën abal pour un contrat à durée déterminée parce que démb ngi bu par force day yuxu garaawul bettiwul par force monsieur le maire di nga ñu ligne par force liggéey biñ la jox te mu nekk ci askan bi mu marché yaram par force monsieur le maire je suis désolé mais di nga liguey Lamine c'est un jeune qui habite Pikine. est-ce que ne lim la gis ci Lamine motax mu kon bi des na de bi des na parce que dina gis kenen man ci Lamine mais Lamine man sama parti mais jox carton blanche Pastef non ay mouvement associatif non. adhésion massive bi muy gis ñu nekk ci ginnaaw Lamine Gueye Lamine Gueye bu njëkkoon da daan def sax di dem ci nit ñi pour ñu japp, pour ñu and ak ñom liggéey fi mu toog léegi lay tok nit ñi nan ko Lamine neexul bu neexul on a besoin de vous parce que l'heure est grave quand je le vois muy xass ay rakam maanaam ay xaliss lañuy ñuy politique ak blanchissement d'argent ay xaliss pétrole ak dama koy yërëm sincèrement man man man grand habitant, dama ko ce parce que li c'est terminé c'est fini de verdure projet bi ñu pour defar ko laajul un contrat bu ñuy def pour di signer ak nit fukki pour defar ko Lamine dafa un projet déjà ficelé pour tête de verdure nous ñu am ci leneen gis le droit de dire que non population a le droit droit réclamer donc bu demee ba taxaw naan ay APR un ak RV nangam dafa man wax parti carte blanche lañ jox Lamine Gueye te Lamine Gueye Le maire de commune ville de je maire de la ville de <laughs> daf may suis quoi mais moom instant yi beaucoup ci parti kon quand ci parti. mais monu ma parti parce que Abdoulaye Wade mi mu quand koy bàyyi daf ko dem ci doon wax sama veine bi ban couleur la sax ban violet orange je sais pas voilà donc peut-être veine bi peut-être dina changer couleur donc nous avons trois buñuy and ak nit dem ba gis-gis bi on est libre on doit rien à personne mais politique xaste diabolisation saga, lañ dul def tay buñu rombé nit duñu saga sax dañ koy nous sommes sur nous sommes au croisé de chemin on a un projet politique à présenter au nord pékinois. jot biñu am du jotu diabolisation xam nga ban jot la am jotu liggéey jotu présentation suñu projet politique jot bi mu am mais ngir na un projet te li ngay da ngay monsieur le maire par force par force c'est dommage par force c'est moi hein. c'est pas toi c'est moi projet par force s'il te plaît Voilà ma abal pour un temps mais nañ tamit la directement ay éléments envoyé est-ce que jotul mu tontu la wala am envoyé Je naa yi peut-être dafa de ci envoyé élément bi moo je bi muy wax en parce que pour moi, je suis na mais quand il revient au CI on mi ngi collège parce que daf wax Lamine bu daf daan wax un Lamine moom mi ngi na